voilà li gën a fës ci xëtu yéen kaay duñ ci ànd ak euh, soxna Binta Laay Binta lan ngay démarrer. dañu koy daal di dooree ak Walf Quotidien Ousseyn Ndiaye Walf mi nga xamante ne néega ni tey daal dinay def ci xëtam bu njëkk li nga xamante ne nag moom moo di njëgub yàpp gi nga xamante ne daal dinay yokk fii ci diwaanu ko Sénégal yokk goo xamante ne nag dina metti loolu ci askanuk Sénégal kilo ba doon jar 4000 jamono jile yóbbu nañ ko ba ci 4200 ña ca des di ko jaayee ci 4300 Walf Quotidien daal dinay askan wi jamono ji yanu nañu seenub loxo di yuuxu quotidien ñu daal di fekk responsabilité bi ñeel accident yu bari yi ci kaw tali bi Ousmane Sonko daal dinay jàpp ab frein li mu njortu nag daal dinay jàpp ne force de l'ordre yi ñu ci baree baree bari su fekkee ñoo ngi def seeni i liggéey ña ca des am na ñu cay rax ab saboté ca biir lenn ci ay visite technique ak parc automobile boo xamante dem na ba màgget ñu war kaa changé loolee lépp Ousmane Sonko daal dina cay duut baaraamam le quotidien la quotidien dikk ak ñun ci chamboulement bi nga xamante ne moo ñeel wàllum tenir li ko waral nag jàpp leen ne foofee nga xamante ne ñoom ñoo di ca ambassadeur ya ak ca consul ya jamono jile nag ñu ci baree bari moom ministre bi yor wàllum affaires étrangères di Yacine Fall daal dina leen di woo ngir ñu daal di dikkaat fii ci diwaanuk Sénégal ndax tekki nañu seenub nomba tànk guerre wa nga xamante ne moo daal di dox ci diggante ñaari cheikh yi moom Cheikh Dieng mi fi nekkoon directeur général bu ONAS ak Cheikh tijaan Dieye jamono jëlee nag baat ak tontu mu ngay dox ci seenub diggante ni daal dinay am ci tëju ko frontière wi nga xamante ni moo di diggante Sénégal ak Gambie li ko waral coowal chauffeur yi nga xamante ni seen i camion ñu nga ko fa gaare saa sile tembe nag koppar ya ñu leen di fa yeeku toll na ci 20 000 francs ngir camion bu ci nekk mën a déplacé wu les éco yéenekaay daal di dikk ak ñun nag ci li nga xamante ne moom moo di conseil interministériel de la sécurité mu daal di dikk ak ñun ci li nga xamante ni nag moom moo di wàllum guerre moom Ousmane Sonko mu ngay daal di naqarlu bu baax a baax koy annoncé daal dinañu koy xamle ak annonce yi nga xamante ne waxtu boobee Ousmane Sonko daal dina koy def ngir fas yéenee jël ay mesures yoo xamante ne accident yi dana daal di jeex tàkk ci kaw tali bi boobaak léegi moom Amadou Mame Diop ci les échos yéenekaay la ñuy daal di des mu daal di dikk ak ñun ca lettre wa nga xamante ne adressé na ko kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngay xamle nag daal di ne assemblée nationale jamono jile jatu na ba daal di dëgër fas yéenee jël ay responsabilités am jàll ci beneen mbir moo waral nag nege ni tey daal di nañuy woote li nga moom moo di ab session extraordinaire foofee ca pénku ndaw réew ma enquête quotidien ñu daw daal di koy seeti ji mu dikk ak ñun ci multiplication ñeel déplacement yi nga xamante ne moom président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu ngi koy def ca diwaanuk France euh, ginnaaw génn gi nga xamante ne Ousmane Sonko génnoon na ko wax ci tirailleur sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom war naa delluwaat prononcé benn discours mémorable fee fu nga xamante ne moo di ca diwaanu ko Paris fukki fan ak juróom ci weeru ut gi la ñu nekk ñu su ca noppee ñu ngi koy xaar foofee nga xamante ne moom moo di ca sommet Chine Afrique mu yemboo ak ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar gi la ñu daal di dëgmal ñu seeti ji le témoin le témoin moom daal dinay dikk ak ñun ci accident de la route Ousmane Sonko mi nga xamante ni nag jamono joojee daal di nay taxaw joxoñ baaraamuk tuuma li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum ger mu daal di ne nag désormais lépp loo xamante ne ab responsabilité la danañ ko daal di situer ba accident bu ci am bu ci nekk dinañ daal di xam ku ci nekk nag liggéey ba nga ca waroon a liggéey te dugaloo ci sa loxo ca na mu waree ba accident boobee am ku ci nekk ñu yëkkati liy sa responsabilité nga daal di koy ngardaajoo ginnaaw visite technique boobee tamit daal di nay poser problème lenn ci ay oto yoo xamante ne ba ñu dalee daw ak léegi ëpp na ñeen fukk ci ay at Ousmane Sonko daal ne jot na ngir ñu daal di lëkkale li nga xamante ne moom moo di parc automobile bi le témoin moo ko daal di xamle nege ni tey l' observateur seetlukat bi daal dinay dikk ak ñun nag ci li nga xamante ne moom moo di sécurité alimentaire ginnaaw zone de crise ak milliards yi nga xamante ne jël nañ daal di ko cay dugal ngir ab riposte waral na nag ba ab interview bu yaa moom la l' observateur daal di def ak waa ji ñuy woowee Jean Pierre Senghor mu daal di ciy dellu siwaat ak projet boo xamante ne toll na ci 220 projet yoo xamante ne nag ñu ko tegee lépp lu jëm ci wàllum insécurité alimentaire dootuñu ko ci diwaanuk Sénégal ci 46 département yooyee moom Jean Pierre Senghor daal dina ci yëkkati ab xam-xamam xamal ko waa l'observateur ba tey ci l'observateur ñu daal di fay fekk poste PCA gi nga xamante ni jamono joojee nag waa l'observateur nee nañ dañ kaa galvaudé maanaam dañu kaa daal di salfaañe li ko waral mooy tabb ga nga xamante ni tabb nañu ki nga xamante ni nag moom moo di Landing Misan Seck ñu gën kaa xam ci kilifa ak Mortala a di nit dof di lay boobee nag l'observateur daal dina ci samp laaj ci Ousmane Sonko ñu ngay njortees ab voyage am gu njëkk mu daal di génn ci diwaanu Sénégal dem à l'étranger moom Ousmane Sonko moomee élimaanu jëwriñi ñu ngi koy xaar à l'étranger ci wàllum justice la ñuy daal di desandeegum ci l'observateur mu ñëw ak ñun ci conseil supérieur de la magistrature nege ni tey ñu ngi cay xaar ay chamboulement maanaam ay changement yu mag yoo xamante ni nag danañ ko daal di teg ci suñu bët ca conseil supérieur de la magistrature googee ñu mi des ak ñun ci li nga xamante ne nag moom moo ñeel wàllum fisc gi nga xamante ne daal dinay dal ci compte yi kërub liggéeyukaay gi di Woodside nekk benn entreprise australienne goo xamante ne nag waxtu boobee rek état du Sénégal daal dinay jot saisir benn comptam boo xamante ne lu tollook 1 milliard 406 millions daal dinañ ko cee jël ci ay compte Woodside mu ngi ko ibbi woon ci benn banque bu ñuy woowee Citibank Woodside moomee nag daal dinay dem ca kanamu tribunal daal di atte daal di ñu daal di koy atte ak état nga xamante ni ñu ngi koy laaj 41 milliards 467 millions yoo xamante ni daf kaa war a fay ñeel wàllum fiscalité waaye waxtu boobee nag kërub liggéeyukaay gii di wóot saayit nee na 7 milliards 100 millions noppi na ngir daal di koy fay état du Sénégal ñu daw seeti ji Sud Quotidien Sud Quotidien dikk na ak ñun ci procès ñeel wàllum diffamation di tuuma ginnaaw scandalu Covid 19 coow la doxoon ci diggante Aminata Touré ak Mansour Faye ñu daal di ne Aminata Touré daal di nay làpp Mansour ci kanamuk ëttuk attekaay bi source a la ñuy daw daal di koy seeti ji diggante wallu ak Pastef bu fekkee dañaa jëm ci ay élection législative yi de ñu daal di dëgmal jàppaleen ne nag ñaari kuréel yooyu noppi nañu ngir daal di ànd mën a am li nga xamante ni moo di majorité ca pencu ndaw réew ma bés bi le jour daal dinay dikk ak ñun nag ci li nga xamante ne ni moom moo ñeel wàllum euh, saisie bu conseil constitutionnel waxtu boobee Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba xam dafay daal di dissoudre li nga xamante ne moom moo di pencu ndaw réew ma ma Ousmane sonk ak déclaration de politique générale boobee ginnaaw njaga Sylla nag daal dina organiser ay législatives anticipées ci weeru novembre loolee nag dina daal di nekk benn budget boo xamante ni ci weeru décembre la ñu ko war a mën a adopté ba tey ci li nga xamante ne moom moo di bés bi jour ñu daal di fay fekk Amadou Ba moom mi fi nekkoon ilimaanu jëwriñ nekkoon fi candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngay woyal visite ba muy def ca kër kilifa diine yi nege ni démb demoon na ci suñu mbokk ya nekk ca jàngu ba waxtu boobee mu daal di dem seeti ji monseigneur Benjamin Ndiaye mi nga xamante ni daal dina koy dalal ginnaaw waxtu yooyee nga xamante ne nag am nañ ko di amal ay waxtaan ba mu ca noppee daal dinay génn daal dina nag coowal muuraay ak murikaay gi nañ ko yëkkati daal di koy teg ci suuf ab débat woo xamante ne mënees nañu kaa éviter la mboolem yéene kaay Ousseyn Ndiaye lii la ñu xëy fesal ci seen à une. voilà loolu moo gën a fës euh, ci xëtu yenn kaay yi xam naa seen euh, rapidement rek boo ñu ko mënee waajalal le temps que euh, Belia di ko annoncé parce que Ousmane Sonko gis ngeen ko ci revue des titres yi li nga xamante ni yëkkati na ko jëm ci oto yi oto yi nga xam ne ñoom ñooy dugg Sénégal yàggaay bi waaye tamit wax na ci jëm ci way takk jar yi nga xamante ni ci kaw tali bi léeg-léeg oto romb leen ñu daal di koy bàyyi mu dem conséquences yi.